terrain bi jënd ko. may terrain bi nee nañu soxna Sebata moo ko may. te ñun def nañu ay invitation soxna Sebata terrain kër gi mu nga amoon ca Dakar moom la ko may bi mu ko ko mayee da koo dagg ay magasin loué ko di percevoir xaalisam. kon donc ñoo na gis espace bi mu ne kon nañ ma def ba ñu may ma fee kon naa def loolu ñu may ma fii ma jaay ko pour am ci xaalis léegi mu jaay ko ñun ñun ñu perte mais ñun dem nañ ba soxna si ko fekkee même danga koy jaay nanga ñu ko jaay mais loolu nangu ko parce que dañoo bëgg suñu doom am fu ñuy fawe pas yaa ñu ko ñu dajal suñu koñ mi ñu dajale xaalis ñu jënd ko moom nangul loolu et puis soxna soosu ko topp koo ko topp bien bu soxna si am def fexe na ba nangu ko même waa kër gi sax da ngay diw wax la loolu waaw topp ci ginnaaw soxna si dafa ne intellectuel dëkk na Ndakaar ñun Cees lañu dëkk ay dof la noonu du ñu ay dof suñu taxawaay daal mooy fii kenn du ko tabax kenn du ko tabax tey kenn ko tabax ëllëg ku ko nar a tabax li ma waxoon sànq suñu kaw la ñuy jaar suñu bakkan la ñuy jaar pour tabax ko fii ñi fi nekk ñëpp ay élèves ak fi ni taxaw ñu war a ay ouvrier waroon na liggéey man mi dama waroon a liggéey mais damaa bàyyi sama liggéey ñaan sama patron toog pour lii parce que man fii laa am. waaw samay morom ñu ngi toog ñu nekk ñu ngi bitim ñu ngi feneen kon xale yii fi ñu toll nii man sama ginnaaw la ñu nekk ak ginnaaw Diagne yi mii kon donc maag Diagne Kara mii ñu leen di magal mënuñoo toog di leen seetaan. dañuy taxaw bu ñu bu faat day am ñun ñooy njëkk a dem ñoom ñu doge parce que xale mooy mooy yaakaar ëllëg kon nag xale yi duñ leen seetaan waaw li am daal ba am mooy lii bëgg nañu ñëpp jot yi bëgg nañu ñëpp xam ko bëgg nañu àdduna gépp xam loolu fii daal koo nar a tabax ne suñu bakkan nga koy tabaxee.